Abdou Aziz Diakhaté responsable des jeunes de la commune de Thiès Est. waa mais di euh, sant yàlla d'abord ci fekkee gi ñu fekkee li nga xam ne nii tey ñu ngi koy waaj di ñaan yàlla fekke it aussi élection yi ndax lu am borom bi la. di santaat yàlla aussi ci décision bi nga xam ne nii tey euh, jël nañ ko tabb le frère euh, notre frère Saër Mangane comme le mën naa ni ku jiite la benn bokk yaakaar dans la commune de Thiès di ko rafetlu aussi di. vraiment encouragé le maire Pape Bassirou Diop il a fait ce qu'il devait faire politique nak ak li wax nit kilifa euh, am nit ku déclaration c'était une déclaration tellement responsable et républicain cependant nak li ci dess le boulot le travail ndax nak parti ñu parti bi décidé ci leur rek lañ mën a pilier wu di ko mais aussi di le frère Cheikh est euh, plutôt à une ouverture parfaite comme ni ma ko waxee keroog ci point de presse bi ma def à une ouverture parfaite et dans une démarche inclusive te loolu la ñuy xaar ci moom loolu la ñuy mës a gis ci moom te it loolu la ñuy xaar di ñaan yàlla it li nga xam ne nii tey vraiment ñu ñu ngi ci jëm yàlla na ci yàlla def sutura. d'accord. yàgg ànd ak le maire Pape non Pape basirou li nu mën a wax ci moom yaatu na quoi d'ailleurs li ñu ñëk wax moy c'est un homme social parce que le mot banque locale bu ñu koy wax Idrissa mo ko daan wax te yaakar na ni ku wax lolu rek déjà wax social ñun li tax ñu xam ko min ko moy dañ daan and ak mom ci lepp te ci li daan ànd ak moom toujours c'était quelque chose de sociale social dimbali nit ñi taxawu nit ñi taxawu la parti doon nag magu parti bi aussi ici à Thiès doon magu parti bi euh, peut-être bu ñu amee lenn lu ñu ciy wax rek loo xam ni duñ ko lii mooy tey dafa doon emblème ci biir Thiès moom ku déglu démb li mu wax déglu démb taxawaay bi mu am di nga xam ne kii dara ñoru ko lu dul Idrissa te dafa réaffirmer engagement ak fidélité ak xaritoo ak diggante frère et sœur gi ci ne frère entre frère plutôt bi nekk seen diggante muy lu am solo ndax kilifa bu dara dalee sa kaw ci la ñuy xamee ndax mat nga kilifa wala matoo kilifa ñi yéen ñii ñun ñi ñëpp xamoon nan information yu jiitu xam nan aussi tamit li ci xawaat ci diggante bi donc kon mais bi mu amaate am na maturité kilifa am jëmmi kilifa am dayo kilifa am taxawaayu kilifa li ñuy xaar nag tey ci sayeer ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen mooy ñu am démarche bu yaatu bu ubbeeku xam ne parti bi loolu la soxla tey dafa am fu ñu jëm dafa ñu jëm moom moo ëpp solo di ñaanal yàlla nag Pape Bassirou Diop yoon wu leer wu yaatu parce que mérite bu mu mënti am bu ko part bi jox rek Pape Bassirou romb na foofu ndax nag tey man j'ai l'habitude de dire que ni bu ñu sañee cëral ci biir gouvernement c'est parce que suñu taxawaay la te taxawaay boobu buñ ko dee am commune Thiès Est daf ci am partition bu am solo ci électorat réew mi que ni ni am sax mais unanimité yàlla sax amu ko Pape yàlla sax amu ko Idrissa amu ko Macky Sall ko kon Pape Basir Diop bu ko amul sant yàlla alhamdulilah. non xam nga loolu peut gis-gis boobu lan am. kenn du leen ko bañal gis-gis boobu lan am ñoom loolu moo ci seen xalaat ñun li ñu doonoon suñu xalaat mooy ñu fidèle à lui engagé wu à lui jàppale ko ba suñu dernière énergie te loolu loolu moom mooy suñu wareef ñun parce que yaakaar naa ni politique nag boo ci jëlee ngor colère dignité beneen valeur amatu ci solo. waaw man la euh, Samba Sy bon man je suis le collaborateur direct du maire euh, sortant Pape Bassirou Diop mais également je suis le chef protocole. donc mu nek suma xarit mom mu nek sama responsable politique également d'abord abord euh, sant yàlla sant bu baax julli ci bi alayhi wasallam di war suñu kóllëre ak suñu yaakaar ci suñu serigne serigne Saliou Mbacké di sant yalla puisque aussi tamit di xamni ni euh, nani fi nga ma fekk léegi pap ci lim la wër suñu wayjur bo xamanteni suñu tante la dafa genn adina kon demb rek mu ngi fi won manam lu wara jeex rek day jeex donc ñu ci sant yalla bu baax donc di remercier le maire pap Bassirou Diop vraiment ci and biñu and donc jusqu'à présent aussi nous sommes un responsable donc un charge du parti vraiment mérité aussi donc nous dogal na ñun dafa am xam ñun dañ ko discipliné wu di ci dox le président Idriss Seck muy sa ses propres décisions donc nous dañ ci def de nous il ñu ko ko ba aussi compétition nous élection nous donc vraiment nous dem choisir frères aussi vraiment Nous ta xam ni pap mom mérité na lu ne donc bu li jeexee tamit parce que tamit won nañ ko deux fois ñu ñi and ci ak mom bu jeexee yi day sant yalla bu baaxa baaxa baaxa baax ñu nit ñu and ak mom sant yalla bu baaxa baaxa baax donc ñu ku ne la xam na ni ñaari nit ñu gis ñuy and amna ko faral man pap mom ku muy jonganteel mom la andal mom la faral je suis sincère de ce que je dis mais aussi tamit en principe duma top politique ba fàttali ni julit la te yalla wax na faalun lima ma may xol luma neex ma dogal ko dogal bi sant nañ ci yalla bu baax yàlla na jik ñu ñu ko dogalal yàlla na jik également ci dogal bi ci ku mu dal muy Pape Basir donc en nag metti na poids bu toll ni Pape Diop donc vraiment amul façon bi quoi defin bi moo ci xaw a doy mais Pape vraiment sportif la nit la ku baax soo ko jegewul mënoo ko xam dëgg yàlla. waaw man je dama bëgg man Pape lu mën a xew rek ay nit nañuy nañuy nañuy na nañuy ànd te Pape vraiment Idrissa moromam la xaritam la. puisque aussi tamit lima man la je parle de moi hein je parle de moi parce que lu nit am yéene nalako mais je parle pas de Pape Diop parce que tamit nit ñi nañu bu ñu Samba ci buy wax moy Pape Diop voilà d'accord bien vrai que je suis sincère ak Pape Diop dañuy and politiquement man je ne suis pas Idriss Seck sax mais je suis Pape Diop parce que lolu mak mom yalla ben affaire dañoo bokk lepp waaw dañoo bokk lépp loolu la yàlla dogal quoi parce que politique moo bol nak mais dañoo dem ba nga xamanteni politique mënutuñoo tàqale loolu lolu yalla moko def moy suñu jëwriñ moy suñu lepp machallah donc dogal bi moy ñun ñep sétane nañu fi donc vu les sondages mais également liste yi nga xamanteni jotone na génn donc nek le provisoire nit ñi tek ko on peut dire même officiel parce que lu jógee présidence mom lu wër la ngeen gis Bassirou Diop Alioune saw Lamine Diallo ci biir Thiès Yankhoba Diattara ville bi lolu ñun ñep amon nañ ko min ko donc buñu démé donc ba mu dess ay quelques jours nit ki di préparer ay mbokam diko féliciter félicité ndax ku nek tamit amul lu sa honneur ak sa dignité vraiment ñu toogaat changement bu gaaw bi am ci donc président moo xam ne tax man na jàppoon naa ni euh, changement bu gaaw bi mënoon na nekk lu ñu lu ñu loo woo nit ki waxtaan ak moom pan comme sa morom la te lu mu am tamit participé nga ci moom it lu mu am participé nga ci lu moom lu Idrissa am Pape participé na ci lu Pape am tamit Idrissa participé ñoom ñaar ñu nekk ay morom Pape dafa am sens boobu ci Idrissa ñun ñëpp ay rakku Idrissa lañ mais Pape moromam la xaritam la Idrissa am ci moom confiance di nga ko diaspora bi ànd ak moom fu bëree bëree bëri xamante nañ donc affaire de copain nga diri ko woo ko ne ko sa waay hé lii kat damaa bëggoon nii laa ko xalaatee parce que Idrissa ci sama njort lu rafet du ko manque de respect Pape jamais au plus grand jamais. waaw ñun ñëpp a ko yëgandoo quoi franchement décision bi loolu daal moo ci xawoon na parce que on n'attendait pas à ça franchement franchement mais aussi li may wax rek bakkanu dal la sax day dox ba mu yàgg rot bakkanu nit également day dox ba mu yàgg rot donc kon ndombay tànk àddina la yam donc aussi ta ànd bu sincère ak bu dul jeex bu ngoré moma gënal vraiment yi nga xam day xaw parce que politique aussi nit ñi dañ ci wara baye xel pap c'est-à-dire nous nous sommes pas des adversaires nit ñi duñu ay ennemis aussi nit ñi mën nañu am ben adversité mais bu jeexee na jeex quoi bu ñu tamit nañu délo ci xel yi te xam ne tamit amoon na ay nit yo xamantene ne c'est un cri de cœur que j'en train de faire parce que lima gis ci arène politique vraiment man xamatuma ko politique affaire bu noble la war a doon bu fekkee ni dañuy wax ni cité bi moo ñu intéressé bu fekkee dañuy wax ni askan wi moo ñu intéressé waruñu jël ay baat wala ay wax yu ñaaw wala ñuy dugg ci ci ci ci viwu doomu aadama di ko waxuma kenn moo ko def nag di ko dem mais dama bëgg ñu bàyyi ci xel n'importe fu nit mën a jógee vraiment guerre bi ci am yooyu jaru ko parce que ñun ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi tey su ma xewlee bànneex damay gis ñëpp su ma xewlee naqarit damay gis ñëpp donc ñun nag dafa am loo xamante ni ci lañ fas yéene tënku mooy daray àddina fëquñu parce que ay jullit lañu ay doomu jullit lañ te dañoo yar fi ñu war a yare te li gën a mat mooy nit da ngay doylu sallallahu alayhi dafa wax ni maa ngi leen di dénk alay aleykum bil xanaati fa innal xanaata lay laa yanfadu maa ngi leen di dénk doylu doylu mooy richesse mooy alal te Pape foofu nga toog moo tax lii nga invité ma ma ñëw nit da ngay gëm sa bopp te doylu beneen bi topp ñun ay taalibe rek lañ fas yéene doon te ci la ñuy dox que man que muy te Pape it lu mën a xew

parce que nous frère frères, suñu xarit la suñu sommes la Nous nga également dogal na ñu choisir leen aussi sont des frères nous sommes ngi frères, di ñaanal des na yàlla taxaw leen frères, Nous leen des frères, rabbuna ba nga frères, Nous euh, lépp rek frères, ci cadre frères, des aussi ñu frères, nous ak xel nous sommes Thiès frères, frères, jëm dem ci ak xel Sénégal Nous frères, nous des jëm dem ci ak xel vraiment ñu nangul ku nekk ay droit am nangul ku nekk respect vraiment te xam ni Pape Diop encore une fois il a mérité beaucoup de choses na ci nit ñi di bàyyi xel parce que demb ak barki demb dans toutes les communes doon na jaxaso ci wa parti mi seen xel ci Pape Diop lay nekk pour mu indi stabilité demb ak barki demb ci ay côté moyen ci campagne dan na jaxaso Idrissa du fi nekk Pape Diop mo fi nekk kooku nak donc buñu xol tay ñu faté ko kon ma ngi waxat suma frère yi ñu dellusiwaat seen xel vraiment man nag politique moom vraiment damay jàpp ne rek euh, bu ma ci amee mbégte mooy connaissance yu baax yi ma ci am vraiment mais wutuma ci ay ndomba parce que ndomba bi am solo ci suñu borom lay jógee te vraiment ndomba bi am solo mooy dëggal suñu taalibe te moo ñu gën a lépp maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullah Cheikh le premier adjoint maire sortant de la commune de Thiès, responsable politique du parti Réumi. non je bu rafet D'abord, il faudrait que euh, nous ñi xam ni électorat bi nekk président du Seck la am A ci rencontre Moi, le maire Lamin Diallo a tu as fait un excellent meeting à Thiès Nord mais l'élection locale yi vous dirigez diriger beneen liste bu dul liste réew da ngay perdre c'est une preuve que électorat bi présent président Idrissa Seck la moom moo donc comme moom moo ko moom moom mooy ko neex te suy dénk également dafay déglu l'appel des Thiessois madame li Thiessois yi wax seen souhait en général loolu lay def parce que japonais na également Thiessois yi moom la ñu également lu muy def dana de déglu ndax li wax wala li def dëppoo ak seen intérêt wala déet donc naturellement jàpp naa ni choix yu mu def choix yu baax la ci commune yëpp choix yu baax la également pour la ville de Thiès parce que pour la ville de Thiès on ne peut pas avoir euh, peut-être un maire euh, bu ëpp compétence yon un maire aussi aussi fédérateur mais également un maire boo xam il est très fidèle effectivement aux principes et aux valeurs. Euh, euh, euh, du parti réew mais également ku jàppale président Idrissa Seck donc jàpp naa ne choix yi c'est des choix qui répondent aux aspirations des populations thiessoises. d'accord yow ñu gisoon ni bokkoon nga ci ñi taxawoon ni euh, bu da ngeen a bëgg ñu jëlee fa le maire Pape Bassirou Diop lan moo taxoon da nga jàpp ni warul dépasser deux mandats wala dafa am ci foo ko tegoon. non ñun ñun dañu xam nga li nga wax dëgg la c'était peut-être d'abord pour éviter le syndrome du troisième mandat mën na mais comme ñun ay acteurs politique la ñu ni il est d'abord minoritaire au sein des populations il est minoritaire également dans le parti Rewmi donc jaadu les populations li population yi di wax ak responsable politique yi di ko wax président jël décision pour dëppoo ak moom moo ñun dañ ko na ko bien que c'était candidat ak Serre man ak Serre dañ ko waxoon na ko koo ci tànn ñun ñaar baax na d'ailleurs yaa ngi ma fait maa ngi travaillé ak Serre donc ñun loolu la ñu xam loolu la ñu jàngal président Idrissa électorat électorat sur la base d'informations, comment ku mu tànn rek dañuy lëkkaloo ñun pour l'intérêt de des Je suis ngi leen à ziar bu baax Thiès Prestige euh, man suis ngi Henri Sakoureja, Dia nekk euh, membre le cabinet du maire Aliou Sow à l'ouest Je suis euh, vraiment agent municipal aussi au niveau de la commune de Thiès Ouest. waaw dañuy sant yàlla d'abord. abord sant parce que. Euh, tey chez le maire Aliou Sow yàlla def na mu accéder à la magistrature fii ñëw nekk maire commune Thiès Ouest ñu saluer loolu te ki ko joxoon mooy le président Idriss Seck c'est vrai que yàlla bu tuddee ni da ngay nekk kilifa dina am ci ay loxo yu mu ko jaarale ci loxo président la ko jaarale mu nekk maire donc nekk na maire pour un mandat de 5 ans yàlla def mandat bi dem ba 7 ans donc mu liggéey fi liggéey bu rafet liggéey bu. Euh, vraiment bo xamni ñep ñëpp lañ ko avec un bilan positif donc ñu xey bon euh, c'est vrai ñu dem ci ay investiture ñu changer indi keneen ko xamni mom mo jaar tête de liste bon mu nek lo xamni nek na mbettel touti quand même parce que pour un maire qui a fait un bon bilan dina xaw metti touti nga tok rek yëg ni changé nañ la té yaa ngi sa premier mandat waaw parce que tay mais moom il a pris avec philosophie hein. ah waaw avec philosophie vraiment ñun des affaire bi amee xawoon nañu am xët-xët tuuti sax surtout les jeunes ak ont nga xam ne dañoo am mais par la suite moom moi dans dalal ligne, ñi sax quoi moo leen dans dalal loolu nag mu nekk action boo xam man donc gis positif donc euh, maire Aliou Sow def ko muy réaction boo xam ne ñun avec dañ ko parce que kilifa loolu lay doxee Et moom euh, tey il faut mu dëppoo ak ay waxu démbam parce que foo ko mos a fekk danaan man xam naa bés biñ ma fal ci discours am xaw ma ban bés laay wàcc donc kooku kon am na fu mu tënku am fu mu teg ay kàddoom donc tey bu lii amee tey ñu jël keneen investir ko donc moom it day tënku ci kàddu démbam yooyu rek te yaakaar naa ni ci la tënku ba tey parce que ak création boobu ba léegi gis nañ ci ab dal gu mat sëkk vraiment kii. Euh, donc ak euh, lo xam ne jël nako avec philosophie. d'accord mais euh, ci bi ñu gisee daf mel ni ci ay sondage mom la ñu plébiscité woon. Mhm. mais est-ce que jàpp nañ ni réaction bi ñeneen am ni fi bok fi euh, beaucoup ñu ci mhm. les jeunes comme Ahmed bay mhm. est-ce que jàpp nañ loolu moo posé sur la balance ñu ñu ñu ñu ñu ñu bon loolu nag du ma ci mën a sori trop parce que amuñu ba tey les informations le waral choix bi bon xamuñu ndax choix paritaire la parce qu'on ne sait jamais on parle de parité et ki ñu tabb jigéen la non parce que le euh, président Idrissa a décidé mais nous nous avancer ci ay propos nous way dafa am influence parce que Idrissa a dit ni mët na mët pression mënatu koo soppiloo ay ay euh, décision parce que ku dund pression bu metti ak Ablaye Wade dund ko ak Macky Sall ba yegg si fii tey donc je pense que ay pression yoo xam dans le parti mënu ko changer loo avec ci loolu lañ jàpp ñun waaw. bon euh, bëgguma ko euh, jiitu ci kàddu parce que vraiment moom mi ngi préparé dina def sortie médiatique waaw promptement du yàgg te bu génnee moom incha allah dina wax position bi yëpp mais am nañu yaakaar ni vraiment.

bon kooku nak euh, waaw euh, lu nek mëna a en politique waaw vraiment loolu mëna nek waaw parce que clôture guñ liste mais buñ ko tabaté buñ ko tabul yépp ñun liggéey biñ nekkoon dañ ci nekk au sein de réew mi vraiment waaw euh, tey suñu sœur Binta Bass moom la teg mu nekk tête de liste moom lañu waxagum fi mu ne nii mais wax dëgg yàlla kooku tamit bu fekkene lolu loolu confirmé wu mais liguey bi moy continuer rek waaw parce que c'est la famille euh, réwmiste quoi vraiment merci waaw man la Seydi Ndiaye euh, nek responsable euh, des jeunes de la commune de Thiès Ouest waaw maa ngi nuyu de di nuyu spectateurs yi nga xam ñoy sétane Thiès Prestige di wax que ni doga bi ñu ko jëlé ak philosophie jël ko ak ngëm aussi parce que yalla mo joxe nguur mo jël té bu fekké aussi daf koy jall ci nit nit ko ki la ko dénkoon jël ko kon du ñu def lu dul sant yàlla di woowaat ñëpp que ni parti bi ñu ñëpp ñoo ko bokk quelle que soit la personne bi nga xam ne moom lañ ko mën moom lañ ko jox ñu war nañu mën a jàpp ci ginnaawam fexe parti parce que lenn lañu am mooy lu essentiel mooy avenir parti bi moom moo ëpp solo kon je pense que muy euh, suñu tata Binta Bass muy keneen ak keneen ku mu mënati doon tey du ñu def lu dul topp ci décision bi aussi jàppale ko jàppale nu ñu fexe parti bi jëm kanam. je pense que non, lañ ko jël ak philosophie. non liggéey na na te je pense que Carole war nañ fi point de presse presse bi ñëpp ñëw mu présenté un bilan am te doon ko def après euh, ci ay euh, fascicule pour vulgariser ko ñëpp xam un bilan bu def te c'est c'est un bilan palpable foo dem tey mën nañ fa dul loxo ni lii Aliou Sow fi def équipe municipale am ñu liggéey liggéey bu am solo te Idrissa jot na ci bilan bi c'est na bilan bi parce que am nañ ci retour à travers ñeen ñoo xam ne jotee Idrissa

mais je pense pas que ni affaire de question de bilan parce que parce que bu questions question de bilan le monde. wax deug yaa xam naa bu fekkoon la kese Idrissa du fi jël parce que Aliou vraiment def na fi bilan bu extraordinaire. Euh, Mangitou ngi ser Mangan, Mangane euh, nek adjoint au maire de la ville de Thiès le quatrième adjoint au maire de la ville de Thiès euh, di wax ne kontaan nañ ci ñëw ngeen ñëw tey seet si ñu fekk ñu politique mooy le cyber campus.

Santé yalla bu baax eh, julli que yonent bi comme niko jullit yëpp ci lu mais aussi li ci njëkk lu naturel moy remercier le président Idrissa parce que dans le parti réumi je ne suis pas le plus qualifié euh, je ne suis pas aussi en termes de compétences le plus qualifié donc s'il porte son choix sur ma modeste personne ça veut dire que né ci mom la waye du donc sur ça au nom de la famille politique bi ma appartenir au nom de quartier bi ma au nom de la commune de Thiès Est ñu ngi koy remercier bu baax a baax ci loolu ah li ko motiver tamit xam nañ ko quelque part xamuñu lépp ndaxte kilifa la am na fu muy teg barème de référence am mais li ci ëpp solo li ma jàpp ne moo ko war a motiver mooy xam xalaat na ne man nitu consensus la mooy nit laa boo xamante ne lépp lu may def dinaa ci am mesure jëm cee am mesure euh, ba tax ne coow politique li mu bëri bëri bëri dégg ma ci dina jafé donc nag loolu tamit on woné ne comprendre nañ rôle bi mu ñu joué ko moy niñ koy comprendre dafa bëgg njabootam ñu téyel ko ko te inshallah luñ ci mën dinañ ko def loolu nak li ci ñëk moy amon nañ sun grand frère ko nez ne frère la nekkoon sun nek sun kilifa ñun ñëpp ñu nangul ko ko moy le maire Pape job. qui a abouti un travail extraordinaire au niveau de CSS du point de vue politique mais même en matière de gestion loolu tamit ñu àndoon gunge koog moom mu amoon benn mandat amaat beneen màndaa loolu yëpp coow mosu ci am dara mosu ci am donc nag vraiment ñu dem ba nga xam ne yàlla def na ne tey ñu war a jël yoon bi mu jëloon bala ñoo nit nag boo nekkee ci mbir bu dee bëgg nga cee jariñoo ña nga xam ne ñoo ko sonnoon ba mu taxaw il faut que nga am seen gërëm soog a mën a continuer te loolu moo tax comme mag sunu mag la liggéey fi liggéey bi mu fi nekk ñu ngi koy tatagal di ko félicité ndaxte lii yëpp bu ko téewul woon bañ ñëw flambeau bi diñ ko mën a yeggale donc ñu ngi koy jox cëram bu baax comme niñ ko ko doon joxee bi nga xam ne dara xewul nga xam ne lépp lu ñuy defati ci moom lañ ciy jiital la preuve bi yëf yi amee li ma njëkk a jéem mooy nan laay def ba dégganteeg moom du ma xaar mu woo ma wala leneen parce que man maay jeune frère am te rôle boobu laa bëgg a doxee donc ñu ngi ko non seulement moom ñu ngi koy tàllal mais ñu ngi tàllal képp ku nekk parti réew mi képp ku nekk dans la mouvance présidentielle surtout la mouvance présidentielle aussi il faut que je je mette l'accent sur eux parce que ñun tey yàlla def na ci sañ dogalam ñun ñoo bokk tey fi ñuy bokk suñu gaal gi donc tey rapport de force amatul amul dara nous tirons vers dans le même sens donc nag loolu dem na ba tax na ñoom ñu ngi leen di tendre loxo tendre la main bi ñu leen di tendre la main respect rek moo ko lal ndaxte ñun ñëpp ñun ñëpp xam nañ ne tubaab yi ñooy wax faire du faire du terrain en politique c'est avoir du terrain te ñun ñëpp xam nañ ne ñoom qu'est-ce qu'il vaut sur le terrain en terme ci de de sacrifice yi def ci score yiñ ñu ba fi ñu yegg te nit nak politique boy fayeku ci say ci say ci say score ci say résultat rek ngay fayeku té ñun à partir de d'efforts yiñ def ñun mérité nañ suñu respect té donc kon ci respect lañ leen di lañ leen talalé loxo pour ñu ñëw and ak ñun jappalé ñu ci ci liggéey bi def ko aussi à l'endroit de tous les Thiessois ñi nga xamné am nañ chance di seetaan télé bi qu'il soit d'ici de Thiès Est de Thiès ville ou bien de la diaspora fuñ mënti tool nañ bàyyi xel ne liggéey bi ak lu mu diis diis diis suñ jëmm ji donc mënuñu ko yeggale ñoom ñu ngi leen ci xaar ñu mënti nekk mais di leen remercier waa ci taxawaay bi lu nit réer lu réer nit ci cees bu ko bëggee xam day jokk ci cees Prestige mooy wane ne vraiment kontaan nañ bu baax ci yéen ci seen taxawaay. et mais c'est une émission de haute facture c'est une émission de haute facture tay bo chaîne bo a à dimension nationale il faut que les gens vont consommer parce que non seulement ki koy il est à la hauteur mais invité une invité c'est des invités de qualité donc vraiment c'est une excellente émission et nous lui souhaitons bon vent.